jaajëfatee jaajëfatee sama gars man la Mister Shake depuis Brooklyn mais sama gars yi tey damaa waaru ba ci kanamu yàlla Mame Mbaye Niang laa doon léegi ci benn site bu ñuy wax Sénégal Actu defe naa Seydina xam ngeen ko youtubeur boobu moo ko moom mais Mame Mbaye Niang jàpp Sonko lu ne la ko yàq nee na fi mu nekk nii Sonko dafa am beneen problème beneen problème boo xam ne moom lay jéem nëpp nëppal waxatuñu wax ay Adji nee na am na benn scandale ba pare yemu fa mu ne Sonko affaire massage yi am na boo xam ne Almadi tamit amoon na fa problème amoon na problème mamel mu wax ne Sonko am na benn xale bu jigéen tamit bu mu amoon problème ba kooku jóge fi dem Maroc mais ma Mbaye Niang dañu yaakaaroon ne li mu wax ak Maïmouna Ndour Faye bu ci jógee dina yem mais moom nee na bu ragal war a am Sonko moo war a ragal xam nga neena ku bëgg Sonko ku bëgg Sonko naka wax mu yem nee na affaire Adji Sarr bi dina fexe ba mu am nee na dina fexe ba Macky Sall dellu ginnaaw fexe ba mu am kon dafa bëggoon wax ne xëy na Macky Sall jëloon na décision ne lii dootul dem tribunal waxoon naa leen ne ñii li leen arrangé mooy affaire aji Sarr bi mu bañ a dem tribunal waaw mais moom daal nee dina fexe ba Macky Sall ñëwaat ci affaire bi parce que nee na moom Adji Sarr la gëm gëmul Sonko lan la waxati moom li mu wax dafa bëri mais nag nee na appel à l'insurrection bi loolu dindi nañ ko toppatooñu Sonko ci yow yaa yëngal xale yi ba xale yi génn ci réew mi loolu dafa naa ñëpp xamoon nañ ko waaye nee na affaire viol bi moom aji saar la gëm Adji Sarr la gëm aji Sarr la gëm nee na Sonko dafa xamadi gars yi lii mu wax yëpp man mënuma leen ko wax Mame Mbaye Niang nee na ñoom seen bopp ñoom ñoo jug pour dal ci Sonko jaral bu dee Sonko affaire bi jaral na ko bakkenam moom nee na jaral na ko bakkenam ak ak ak bakkenu waa APR yëpp waaw léegi nag nee na yëf yi dootul problème gouvernement bi ndax gouvernement bi ñoom ñoo tax Sonko am fit bi mu am def li mu am ndax ñoo xam ne Macky daf leen fi tegoon ñu mel ne ay Diouf ñoo xam ne dañ leen fi tegoon mu ngir ñu xeexal Euh, Macky Sall Sonko ba mu jógee di menacer nit ñi di def di wax di tëkku nit ñi di wax lu nekk ñoom ñoo tax Sonko tey am li mu am ba xale yi génn dëkk bi tàkk mais nag nee na moom ba muy nekk ci gouvernement bi Sonko ñemewuloon def lu mel nii waaye léegi nee na lii dootul problème gouvernement problème mu régime mu Macky Sall la gars yi man dama waar ci yàlla ci mambay ñaa ñoom daal moom daal bu dee Macky Sall moo ko yónni te loolu lay nduru ndax moom mooy chef cabinet Macky Sall ndax bu dee dafa dem ci may Maimouna Ndour Faye mu wax fa wax yii yëpp dëkk bi yëpp yëngutu waa Sonko yëngutu waa ñoo lank yëngutu M2D yëngutu lu ah, euh, mu tuddati ñoom Karim Xurum Xàq tout le monde tout le monde génn na ñii comme xeex lañu bëgg dinañ leen may xeex ñu yaakaar ne bu waxee loolu Macky dina ko génne ne ko ay eh, sawaay noppil waaye tey mu ñëwaat mu ngi nii démb la ñëwaat defaat bi euh, euh, interview bi dem ngeen seetaan ko bu leen neexee Sénégal Actu dem leen ngeen seetaan ko da ngeen di waaru ci ci ci saawaay xamuñu ndax dafay jéem a jéem a parce que temps kat Sonko daf leen sonal moom nag nee na ah, nee na yaay euh, Macky Sall moom mooy ñaan njëkk xalif général ba yëf sedd ñëpp xam nañ ne demeewul noonu Macky Sall Sonko daf ko jekku woon Macky Sall dafa doon waaj a daanu Moustapha Diakhaté ci boppam waxoon na nañ pare woon nañu pour jël président de transition maanaam pare woon nañ ba ñëpp ne Macky Sall day dem ministre yi làqatu ñii dem ci hôtel yi ñii dem Dubaï ñoom Birima Ndiaye di dem Dubaï waaw Macky Sall nag ci la tiitee Marème Faye Sall woo euh, Moustapha Diakhaté ñu dem palais ba ba ñu demee pale ba ci la ñu Moustapha Diakhaté mooy wax de ci lañ dem ci sëriñ après ñu woo Sonko Sonko daal di calmer affaire yi kon moom bu mu wax ne <laughs> Sonko moo ñaan njëkk ñoom ñoo ñaan njekk Sonko daal di sauver Macky waaw mais léegi gis nga nu mu tourné wax ji nee na euh, Sonko moo ñaan njëkk ñu dindi appel à l'insurrection léegi mu ñëw dem fii barki démb li mu génn fi wax di menacer nit ñi ne ko looloo tax nee na amatul benn sëriñ bu mën a ñaan njekk ba ñu may leen ko. lii nag wax ji wax ji dafa ëpp lii mooy wane ne ñii faalewuñu Sëriñ Muntaxa faalewuñu xalif général Tijaan faalewuñu Laayeen faalewuñu Ñaseen ndax yow boo toogee di wax ne amatul benn sëriñ bu ma mën a ñaan dara ba mu may la ko mais loolu loolu du wax bu teggi waaw te ñëpp xam nañ ne demul loolu mais nag Sonko moo tooñ boppam comme ni mu koy waxee moo tooñ boppam ndax booy xeex da ngay xeex guerre day saf mondial Macky Sall bu dee yow da ne Macky Sall baaxul ci réew mi ñu ngi pasar pasare xaalis ci réew mi ah ñu ngi séddoo xaalis réew ma xale yi liggéeyuñu dara amu fi nga nga jekku ko bañ koy waaj a dindi Moustapha Diakhaté wax de beneen ndara ut président intérim yow nga ne non nañ ko bàyyi mu eggali troisième mandat boobu nag Sonko yaa ko def léegi Macky Sall ngi nii gis nañ gendarmerie bi mi ngi noomee di di changé di jël nit teg fii jël nit teg fële ñii ñu jël leen ñu yóbbu leen Sédhiou ñii ñu jël leen ñu yóbbu leen fii xam nga. lutax muy def lolou ñu bari nee nañ Macky Sall fi mu nek day pare mi ngi waji ut ñetti junni gendarme la wax est ce que du doon nerve yi nga xamne ño ñoo yore na ay bant yak ay fital du dóor xale yi ñooñu lan dara jël duggal leen ci police bi wala ci gendarme bi ñu nga xamne ne kenn dootu leen bettaat sawaay nee na ne Sonko gennat lolou la mbay Mame ndia wax nee limu li mu defoon na ko kon ñom fu mu nek dañoo yakamti xale yi gennat bañu dóor leen bañu ñu fital leen bañu ray leen ndax Macky Sall ci boppam wax nako nee na li fi am dootul amaat il faut pas croire que l' état est faible Macky Sall nee bu leen yaakaar ne nguur ñi amul doole Macky Sall nee na nan ngay fekkee gendarmerie foo xam ne foofu la ñuy dencee gànnaay yi nga dem xeex loolu mooy ku fi génnaat naan da ngay dem ci ci gendarmerie di xeex dinañ la rey yëf yi nag dafa doy waar doy ba nga xam ne fi mu nekk ñëpp xam nañ ne xeex dina amaat ndax waa ñoom lànk nee nañu dañuy préparer pour wax kañ la ñuy génnaat ci élection locale yi day am par force yëf yi daal fi mu nekk nii. ku titul war nga tit ku titul war nga tut mais en tout cas Mame Niang koo xam ne sax djouf sar ndax limu wax djouf sar ñu yaakaar day delu ginaaw te gennat na waxat la même chose neena djouf sar mom bu mu jema wax ay affaireu maire Mame mi dafa melni maire Dakar moko intéressé lolou lay nduróol mais en tout cas wax ji guñu ko guñu fa mais dama bëgg wax rek ne Sonko fu mu nek ni bu yobbu mu préparer bopam mu préparer bopam te xam fi mu nek ni ah gaay dañ koy fexel te te il faut que ñu fexeel ko il faut que ñu fexeel ko parce que fi mu nekk dafa néewal doole Macky Sall ba nga xam Macky Sall ñëpp xam dafa ñëkk waaw léegi nag dinañu xool fan lay mujjee mais ñun li ñuy wax rek mooy mooy li ñuy wax chaque jour bu ñu Sénégal jàmm moo fay am bu ñu Sénégal du tàkk mais nag lépp ci loxo Macky Sall la yem yaakaaruñu ne heure bi waroon na fi fekk nekk ñu ñu dind ñu indiwaat wax ji wax ji ñoom waruñu ko woon indiwaat ci lu Sonko wax rek Sonko wax fi dara lu bees Macky Sall moo waroon wane ne moom mooy njiit mu eggali mandaam bu mu def troisième mandat élection yu jaar yoon mu dem waaye bu fekkee ne dafa moom dafa ne il faut mu toog pour ñetti at loolu nag moo tax dëkk bi di tàkk gars yi like leen partage leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu jaajëf ba beneen.